jërëjëf mbokk internet yi bur ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fooy mën a ne del soit ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ki ñu fi dalal tey xam ngeen ko xam naa ko Serigne Mamour Seck Aqibu Ibrahima góor yàlla euh, jamono bu ci nekk rek comme ni ñu leen koy defalee semaine bu ci nekk ñoo am lu ñu leen jox rek ñu waxtaanee ko waxtaanee xam-xam ay waxtaanee aussi situation réew mi ku ne xam na ni mbiru Ndella Madior Diouf <laughs> mu ngi mu ngi des ba tey jaw a ngi desu xammin ah mbiru Barthélemy Dias mi nga xam ne Cour suprême tey ah dellu na maanaam confirmer condamnation ba te condamnation ba nag lu ne xaaj na ci mooy day perte d'abord poste député am te euh, bu ko yàlla dimbaliwul dëgg délégation spéciale lañu yóbbu mairie Dakar yooyu des situations yi mën a jur coow mbiru Ousmane Sonko ba tey ñu ngi raayante pour mu bokk ak du bokk yooyu nekk waaye dinañu waxtaanee mbiru combat bu rëy bi nga xam ni war na dox ci diggante Reug Reug Bombardier di ginnaaw suba waaye combat bu mag a mag war dox ci diggante Boy Niang 2 ak Ama Baldé ak kii nga mooy Modou Lo bi ñu nuyu la bàyyi la nga néeg ñu lay ci bi promédia ak burgéwél aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim laa xawla wala quwata ila billahi alali alazim yaa imata cheikhi uhdir lana bi haza almahdari waltaatifi bi nazaratin totti lana bi sawari wa baad mbokk yi nga xam ne ñëpp ak ñuy seetaan maa ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziyaara di leen màggal di leen wàccee kenn ku nekk wàccuwaayam di nuyu suma waajur di nuyu sumay taalibe sumay soppe di ñaanal yàlla sëriñ bi yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem di wax alhamdulillah beneen yoon bi ñu yàlla mayaatee mm. ñu mën a toog fii ànd ak wér ànd ak kàttan ba nga xam ne yokkute mm-hmm. yàlla nga koy def ci suñ diggante ak jaamu yàlla yi ci suñuy mbiri bopp loolu yëpp ñu ngi sant yàlla bu baax di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ mi mbiru Ndella Madior Diouf ak xale yi Pépinière ba defe naa dégg nga tool yi ba finalement euh, police teg na ko loxo. waa alhamdulilah yëg naa ko. Hmm. comme ni ko ñëpp yëgee. wax dëgg yàlla yëg naa ko comme ni ko nekk yëgee nattu la bu dal ci kawam yal na yàlla oyofal natt bi te teggi ko. Hmm. barke yonentu sallallahu alayhi wa ndax loolu laa ci mën a wax ndax wax dëgg yàlla. Hmm. xamoo yéeneem daal. xaw ma yéeneem xëy na lu baax la woon ba lii fekk ko ci ñi ne la commerce ci xale yi nangam nangam cool yi bari na. xamaluma ko dara moom ci ay mbiram yàlla def na sama suñ maa kooku sax xaw ko sax wax dëgg yàlla. Hmm. dafa fekk ne jamono bu dara amee rek ñëpp dinañ ko yëg. Hmm. loolu rek laa ci am. waaye kilifa bu ci wax da ciy teey. ah man de wax dëgg yàlla man Serigne maamul Mm-hmm. mënuma la cee wax dara lu dul ñaana ko yàlla mm-hmm. nattu la nattu jullit bu nekk di dund mook nattu ànd nattu boobu na yàlla na yàlla teggi ko ci ku mën a doon mbiru ja Barthélémy Dias déglu nga ko mais dafa mel ni waa Pastef fii dañ ko ko yéene ndax dañ ne dafa waroon Ousmane sonk lii moo gën a tuuti ci li war a gis waa loolu moom euh, mbiru politique mm. am na lu ma doon ci wax lu baree bari moo tax yi bëri yu xew. bettu la daanaka du la bett. Mm-hmm. Eh, ku faral di ñu topp rek waxtu wu nekk eh, su dara amee bu fekkee yaa ngi topp laa wax. Mm-hmm. da xam ne lii Serigne Mamoun waxoon na ci waxuma ne nag dana perte ay postom mm-hmm. waaye xam naa ne daal xeex bi door na moom fu mu toll nii. ci seen biir. waaw xeex bi door na. te gis nga xeex bu ñëwee gal xeex bu ñëwee buñ ko sànnee mhm. fu ne lay dal mhm. fu ne lay dal te fum mu dal ni xeex bi bëri na ci zaahir muy mhm. waxante bi ak ci baatin ci jëf kenn ku nekk soo ma nee gor sa morom di nga ko def pour mën a toog palaas bi mu toog ci jamono boobu moo tax ku ci nekk mooy lépp loo man di def si gàllaaj ñoom nag def ci am ñoo xam ne loolu dañ koo néewal doole dañ koo de ah, ndax li ko waral mooy eh, jàpp nañ ne baram dara ju rëy ju génn léegi di wax sax dañ naan laax ah, kii mhm. ah, ci moo gaayam moo <laughs> fekk na wax dëgg yàlla li suma maam waxoon <coughs> bu fekkee ku romb rek nga moo gaayayam waa ji dina la romb te doo xam ne moom la dëgg la ñiy baax ñi ngi baax ba léegi Mhm. waaye li ma mën a waxal foofu mooy ñaan yàlla mën na lu ne mhm. man de mas naa toog fii ne ko ay bu ya bu ko yàlla mayoon mu suñ ñeent bët yi daje boobu li amagul boobu yi amagul moom Barthélémy Dias mhm. man bu ko yàlla mayoon suñ ñeent bët yi daje lu bari yàlla mën na ñaa dimbale ci ñaan yàlla ndax ñaan yàlla mën na lu ne te def na lu ne maa ngi koy wax na ko incha allah bu ko yàlla dimbalee mhm. na jóg ci boppam na ñaan lu yàlla mhm. ñaan yàlla ndax laa yurradu alqada ila duhaaw mhm. yàlla attaa yàlla subhaanahu wa taala décision ba mu xas ba wàccee ñaan da koy fomm moo tax ñaan yàlla mën naa tax mbir yëpp mujj oyof mbir yëpp mujj tegewaat fi nga xam ne tege ne li nit ñi yaakaar sax mën naa bañaam bu boobaa Ousmane Sonko sëriñ bi ba tey mu ngi xeex pour bu euh, ngi xeex euh, dafee ngi dem DG di ñëwaat ah. bi yoon sax foofu dañoo dem ak ah. maître si les corridors yi gaañi pamte pamte ko fa tëjal leen fi dugg kooku moom ay mbiram moom xam naa ne ah man de li ma ci yàlla xamaloon ba léegi dafa amagul lu ci soppeeku rek gisagoo ak palam ba tey waaw ah, gisaguma moom ci ay mbiram ci loo xam ne mën naa koo wax ca la ma doon wax ca deux mille dix neuf ba tey. Mhm. waaw gisuguma ko. Mhm. moo tax te yow sax loolu xam nga ko ci man man lépp lu ma gis dinaa ci wax dinaa la ci wax ci kaw dinaa la ci wax ci suuf. Mhm. mais boo gisee mbiram sax duma ci wax ak yow. parce que gisuloo ci lu la parce gisuma ci lu tax lu ma la ci war a wax yow pour nga téye ko jàpp ko gisuma lu ma war a àddina bi pour ñu téye ko ci moom. waaw. sëriñ bi nag ma ñëw ci daj dëpp gi. ku ne xam na ni ginnaaw suba la rëg-rëg di jàkkaar ak Bombardier ci boobu laay njëkkee balaa maa ñëw ci Boy Niang 2 Modou Lo waa combat yi des ci année bi nii ci yu mag mhm. dafa desee safe daal bayre bi ndax hmm. daanaka doo ci kenn kenn du ci concentré yaa nga ca la nga doon wax ci Bombardier dafa am galaaj lool wax nga keroog boo may dajeeg Balla Gaye dafa am gàllaaj mm-hmm. waaye Reug Reug tamit dafa am gàllaaj am ginnaaw. Mm-hmm. muy nit koo xam ne mën naa wax ne fakkastalu. Mm-hmm. moo tax mbiram xaw a sooxe fakkastalu. waaw man ki dem mu am na luñ may wan ci moom. xam naa ne mu ngi defaru waaye mi ngi dajeek tamit mbër dëgg muy Bombardier ku koo xam ne mhm. waxtu wuy ñëw dag naan amul dara waaw waaye boo jaxasoog moom ci ngay gis na am na dara mhm. xale bi muy dajeeg it moom ci guddi yi dafa nekk ci ay guddeem moom itam mhm. waa dafa nekk ci ay guddeem moo tax combat boo xam ne euh, mbir yi dafa def nii dafa équilibré wu waaw mhm. waaw combat la boo xam nii mbir yi dafa def nii te dana feeñ ci seen bëri mhm. waaw buñ ñëwee ñoom ñaar ñëpp da gis li ma lay wax yow si sa jëm bopp da xool ba wax ne kan moo kan moo jekku mhm. waaw ndax combat léeg-léeg ci nit ki jekku dafay am balaa bés ba waaye am na combat yoo xam ne ci njeexintal bi ci lay mbir yëpp feeñ sëñ bi diggante Boy Niang 2 ak Modou Lo mi ne daanaka gëmatul takk gëmatul gëmatul naan te booy Niang di mbër mu am ngemb di mbër moo xam ne mbër mu fonk ñaan yàlla la waaw Boy Niang xeex dafa bari ci moom lool lool xeex bi guddi yi mhm. moom fam fam fam fam fam fam fam fam fam yi ngemoo fam dëkk mhm. naa na tey bu fekkee ne cent pour cent la quatre-vingt-dix yëpp bëgguñ mu daan mhm. mbir la woo xam ne bu fekkoon mbiru dëkk la dama lay wax ne moom mbiram mi fu mu toll mbiru biir néeg la rek. Mm. moog waa néegam. Mm. dafay daje koo xam ne <coughs> xam nga nit dafay toll foo xam ne biddiwam dafay ne ci kaw. Mm-hmm. waaye combat boobu ci ñoom ñaar surprise bu dina ci am. diggante Modou ak Boy Niang. surprise bu rëy dina ci am. lu kenn foogul woon. kenn yaakaaru ci àddina dina am te loolu. <laughs> sëriñ ba damaa ragal say mbir de te dégg naa la bu yàgg yàgg yàgg <laughs> sëriñ bi tey dama jukki tey sëriñ bi ñaari point rek ñu waxtaanee ko xam naa ne sonn nga ah ak si quartier yeeg wér di yeeg waaye sëriñ bi tey dama bëgg ñu waxtaanee point rab lu sonal doomu aadama yi la jamono ji moo xam ñu nekk ci biir réew mi ba ci sax ñu nekk bitim réew te ak mën a yàqam ak ni muy manifesté woo ci ñoom day gis ku ci ñëw ci ñaankatu yàlla mu defal la dara mu tane. waaye yàgg-yàgg day ñëwaat alhamdulilah laaj nga ma ci lu ma sawar ci loo xam ne mën naa wax ne ay at a ngi nii nit laaju ma ko mm-hmm. muy ràbb mm-hmm. man su nit xamee sama cosaan rek dafay xam ne kii moom mm-hmm. loolu tëwu ko mu ngi suma maam Ibra Kumba Seck Ibra Kumba Seck jambaar ja moom la Ibu Diouf de waay ca waay waay waaw naan Ibro Kumba Seck ak alalam ju bari ja ak taar ba waaw teewul lépp jaay na ko dem toppi bàyyi waaw <laughs> yàlla dafa defoon dafa amoon ay jinne da daan faj dof da daan faj lafañ mm-hmm. rawatina mbiru rab yi rab dafa bari ay façon mm-hmm. <coughs> am na ci rab yoo xam ne rabu cosaan la nit hmm. mënu koo dindi ku la ko waxee du dëgg képp ku la ko wax ñoom ñi xam cosaan gi sax liñ am mooy lu koy calmer loo xam ne suy dikk fekk jox nañ la mbir woo xam ne yaa ngi moom su naree ñëw wala moment bi muy manifesté wu ñu fexe def la ko mu teel a calmer hmm. rabu cosaan kenn du ko dindi hmm. am na rab boo xam ne ci mbedd mi la lay duggee dafay dugg góor day dugg jigéen ñu bari na dañoo foog nag jigéen rek lay dugg mhm. day dugg góor day dugg jigéen te dafa bari ci lum lay xiir mhm. am na ñoo xam ne tey ñu ngi jaay seen bopp li leen dugg la waaw am na ñoo xam ne dañuy mhm. ci góor am na ñoo xam ne dañuy sàcc am na ñoo xam ne dañuy dem rek rab dafay duggee ci noonu nit am na ñoo xam ne nag dañuy yàq am na ci ñoo xam ne it mën nañ laa dugal ci place yu kawe waaye doo am da lépp loo am dafay tasaaroo rab moom comme njux mën naa dugg ci yow may la lu ne am na ci ñoo xam ne nag mën nañ laa indi lu ne ba pare téel la ko waaye soo dee sa ginnaaw du jag boo dee mu yàqu waaw su ko defee mbir yooyu yëpp da cee am su ko defee mbir la boo xam ne buur rab képp ku la wax ne da koy faj ala kulli alin dafay ñime tuur deret kon alxuraan kese du ko faj déedéet déedéet mhm. mooy base bi nag mhm, mooy li ci doole waaw mhm. li koy faj mooy base bi waaye lu tax ñu sëriñ su bëri duggasuñ ci parce que rab soo koy faj pour yow nga man koo faj ci nit ki mu am jàmm yow nga am jàmm nit ñi loolu jaralatu leen ko mhm. da ñu gis ku ñëw bëgg laa jox ab fukki junne ñeenti junne mu leen ne li nga war a def pour ki ci saraxam ëpp na loolu boole ko yow say mbiri bopp balaa nga cee dugg waa moo tax ñu bëri boo leen waxee léegi dañ naan la fajuma rab de man loolu du sama liggéey de xaaral ma boole laa ak diw fekk dañ koy def waaye li ci li ci li ci nekk ci danger pour nga def ko yow pour mucc mu ci sa njaboot fi nga dëkk moom itam mu am jàmm lool nit ñi jaralu tan moo tax daanaka soo ma ci laajee sax dama naan lool duma ma koy liggéey mm. waaye dama cee xam lu bare bari am na benn nit koo xam ne am koy fajal kooku rabam bi dafa saay-saay lu na ci la koy xiir mm. na ko xiir ci toog na ko xiir ci njaalo dina ko xiir ci xeex te rab moo koy def loo loolu wala nga gis jigéen joo xam ne nii tey mu ngi sëy wala mu toog rek di pétaal mm. fekk mbiram yee yëngatu su paree dafay am ker mm-hmm. góor léegoo-léeg nga gis mu saay tàng jër bu paree dafay am kersa mm. parce que ñoom dafa mel léegoo léegi da am na rab yoo xam ne est-ce xam nga leen na mm. nga gis nit ku la jege wala yow tey sa jabar wala wala sa doom ku la jege tey ji boo tëddee dañ lay wan kanamu kooku mais daf hmm. lay feeñoo feeñuwaaye nag wala mala waaye kanam gi loolu su ko defee soo xëyee da ngay tam kooku dëmm hmm. moo tax am na ñoo xam ne léegi ñuy tam nit dëmm sax fekk du wala seen mbir yu bon yi moo leen di xiir ci wala mu di la xiir wan la koo xam ne xam nga ko ba nga ko bu yàgg moom merci des fois ku la jege lay doon ku lay jege hmm. su ko defee nag la koy faj nag mu ngi fi li koy faj mu fi fi mm-hmm. daanaka mën naa wax ne yooyu sax duma koy fajee ci biir kër gi yooyu bu ma ko namee <coughs> def ci àll bi rek wala ilaa sa mee la toogal buñ ko xamee dëgg mm-hmm. ñu liggéey li ci war yëpp nga def ko waaye li gën a bëri moom suma la waxee dëgg daanaka liggéey la boo xam ne sawaruma ci dafa bëri risque quoi su ma la waxee dëgg moom liggéey la boo xam ne sawaruma ci moo tax su ma nit sante bu fekkee téeméer la boo benn nit laa ko ciy te daf koy jaral dëgg pour ma dugg ci hmm. Hmm. Hmm. Euh, ñëw ci wàllu seet daanaka li nga koy waxtaan li sax ndax loo man la sa domaine la man fekk naa nit ñëw nuyoo fii toog té <laughs> téewu kurus yoroo dara nga di ko wax di jaar ci ay tur ba loolu moo ma gën a yéem diw xam nga diw mu ne waaw nga ne ko yàgg diw de nangam yow ak diw nangam ba ko affaire daf koy mujj daf ko mujj dépassé quoi en waa <coughs> loolu moom da baax di ma ci laaj tey rek. Mhm. waaye révélation yi ma def yëpp loolu laa njëkk wan àddina bi ne yàlla mu may xamal liy xew mhm. te loolu tey la wax neex rek tey foo tur nañu tàllal la micro mais jamono yi ñuy wax léegoo leen nga daan wax sa sa mbokk yi woo la ne la waa yow seetlu nga li nga wax fekk yow xal yàlla xaman ñooñ nag biñ demee ba xam ne kii moo tax dem nañ ba jamono léegi seetlu dem nañ ba jamono mm. dangay gis tey lu mel ni bii pro wala yeneen site yoo xam ne dañ may xaar bii pro di xaar lan laa wax waaw pour ñu jël ko denc ko coupe d'Afrique bi gaa ngi lay xaar moom ak at mu bees mi at mu bees mi election <laughs> ah, yaa ngi ñëw yooyu moom yeneen affaire la moom dañuy waaj ay série yoo xam ne dañuy toog di waxtaan ak gaañ incha allah waaw comme niñ ko defe woon hmm. ndax daaw maa ngi koy fàttaliku at mi bi ñuy hmm. wax ne buntu tukki ubbi na wallaay ndeysaan ca commencement at weer bi laa barke alxuraan vidéo yaa ngi vidéo yaa pro ah, décembre la woon décembre laa ko wax nga yoon wi xale ndaw ñu bëri dinañ tukki ah. ci la yoon Nicaragua bi gi yëpp ubbeeku wallahi azim maa koy boobu kenn ñu ma ko wax wallahi wallahi azim ah, wallahi ci géej gi ak ci jéeri ji yépp wallahi wallahi su ko defee loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mhm. nga xam ne mhm. loolu mooy xam-xam dafa am loo xam ne loolu de vidéo yaa ngi fi moom mooy baasu xam-xam <laughs> man bi nga wax dama maa ngi naan ah. lan lay wax nii tey maa ngi ci maa ngi ci eh? euh, nuyuwaale suma soppe ndoy baan wallaay bi ma koy wax lool ci vidéo bi mu ne ma bi ma koy wax moom itam vidéo boobu sax mu ci moom <laughs> Mhm, nga xam ne nga gis ne xam-xam moom mooy njiit mhm. waaye nit koo dégg muy wax ci ñaan yàlla boo déggee ñu naan la góor gi ak garaaw mooy baasam mooy mu xam yaay kan mhm. mën a xam nit ki parce que xam-xam yi ñu am ci seet dafa bëri léegoo-léegi nit xale yi may nekk ak seet yu bari dama leen koy nëbbagum sax ndax dafa am seet yoo xam ne dafa dafa efficace léeg-léeg nit ñëw fii bëgg sëy bëgg nit nit dana nga ne ko boo ci duggee dana tas. ci digg bi. mun na mu dem xam nga nag am na ñoo xam ne moom li ñuy bañ mooy ñàkk danaa baax nangam nga dugg ci mu tas nga doog a ñëwaat ne yaa ko waxoon. Mhm. nit di tukki nga ne ko boo demee du neex dana dëgër këng bu demee ne la maa ngi dëkk léegi damaa bëgg a changer dëkk nu ñuy def. Mhm. xam nga seet buur. dafa nekk loo xam ne mag ñi su fekkee nit ki dem na ba commencé jàng xam-xamu baatin mhm. dañuy fexe mu njëkk man seet xam ko mhm. kilifa yi boo gisee ñuy gëm nit mooy ku leen jommal di leen wax ba leen di wax li nekk seen biir néegi mhm. loolu koo def dina xam ne dina xam ne ay kan naa xam nit koo xam ne bi mu ñëwee dama ne ko yow am nga ak diw doom dafa téye gémmiñam mhm. bi mujj bi ma mujjee def loolu kooku ivoirien la dafa am ku góor kum fi ànd nag bi mu ñëwee ma ne ko yow yaa ngi am doom boo xam ne sax tak kooku waa ji mu ànd na bés boobu lay doo a xam ne waa ji am na doom allahu akbar te lu fi mu toog ma ne ko kii dafa am doom sax mu ne ko seen bi mu ngi koy làkk dafa koy traduire mu ne tu as un enfant mu ne oui waaj ji ne ma sëñ bi man c'est man maa ngi do kii li may ànd ma mosuma xam ne am na doom ma ne am na doom hmm. ma ne ko mu ngi denc alal bu bëri waaye nekkul mu ne ma waaw di ko wax ba mujj gi waa ji moom dafa jóg ne ko nañ dem hmm. ngay ngay sant yàlla ci loolu su ko defee ma wax la ne seet ku képp ku bañ loo xam bu ma seetloo ndax boo ma seetloo boo moytuwul sax ci sa fan yi fi muy yem dinaa la ko wax. sëriñ bi sama laaj bu mujj ñu ngi ci décembre suñu mbokk moodu moodu yu baax yàlla yàlla dolli seen i ñu ci baari instant bi ñu ngi Sénégal tey loolu leen di wax tey ñu ci bëgg a waajal seen bopp ndax ku am opportunité ñëw rek pour man war nga am opportunité waajalaat sa bopp balaa ngaa dellu. at miñ jom hmm. bàyyi ma côté ko ba émission bi nii ay <laughs> li ma xam ci deux mille vingt quatre bi. Hmm. li ma ci xam buur nañ ko bàyyi ba pro semaine prochaine nga xam na dama koy wax ñaari fan ñett fan ñu dugg ci at. Hmm. ma wax la nga bind denc. Hmm. waaw waaye Modou Modou yi nag la ma leen di wax di tëjee foofu xam nga lu leen sonal. mooy dañoo amatut imaan. gëm-gëm mm. te jullit ñu du jullit sax ñàkk man moo gisee chrétiens yi sax ñoo xam ne tey duñ jullit sax xam nañ ne ñaan yàlla dëgg la waaye ñëpp a dañuy dóor ñëpp yemuñ waaw ah, bu paak yëpp maanaam bu yàpp yëpp mel ni res paaka du ci am yoon de wax dëgg yàlla ñëpp mënuñoo yem nee naa la waxtu ñu demee ba ñëpp yem nañ xam ne bés ci taxaw na. wallaay yàlla am na jaamam yu mu ruus ba tey. Mm-hmm. dëkk yi ne ci coow ñun ñu ne di tëdd nelaw te ñun coow yi am suñ réew mi yu gën a tuuti ñooy am ci yeneen réew yi tàkk. dëgg la barke Cheikh Moussa Mbacké. te loolu li may wax ñëpp xam nañ ci dara waxtu ne waxtu woo xëyee senegal dina am loo xam ne mën naa taar réew mi. te nit ñaa ngi ne teg nekk ci sa da ngay dem ba am na ñoo xam ne sax dañ naan la wax ah sëñ man taluma coow. nga nit ki la waaye jaamu turu yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey xaaju guddi xadara yeeg taysiir yeeg ah. xasida yeeg si si ah, turu yàlla ah, loolu mënul neen sëriñ nga gis kilifa dégoo leen mu toog di tudd yàlla ronkoñam ji di tuuru te yàlla rek tax nga ne kooku yàlla du ko rus dañ bàyyi caaxaan mm. li doon yàlla di maye ba tey mu fi mm-hmm. jaam bii nag di wax ak yow mm-hmm. li ma gën a soxla di ko wax waxtu wu nekk mooy képp ku gëm na ñaan yàlla amatul maa ngi lay tàllal loxo ne la bisimilah boo ñu xamee rek nga xam ne yàllaa ngi maye boo ñu gisee sa soxla dana faju buñ jëflanteeg yow da sant yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ya